dal leen ak jàmm mbokk internet yi Yaatal Vision yéen ñi ñuy bàyyi xel ci xibaar ginnaaw bi leen nuyoo lu ñeel nag mbirum Ama Baldé ak ki nga xamante ne bii nag moo di moo Lo ca combat boobee nga xamante ne bii combat bu mag la ña ngi koy defee foofee ca arène national combat ba it mën na na jàpp as lëf ca li nga xamante ne bii xewee na foofee ca arène national ba ginnaaw bi nga xamante ne bii nag ñaari mbër yooyu yéen nag yegg si nan foofee ca arène national daal dina ni def nag seen tuus muy bàkku nan waaye indi ambiance bu rëy rëy foofee it ca arène national ba foo sànni màtt nag mu daal di teg nit ñi daal di fees tepp foofee la ci gën a fees nag foofee nag la ci gën a fees ñoom ñi ñëpp kenn ne indi nga say supporter ña fees tepp ca fa nga xamante ne bii moo di ca arène national ba des na leen toppal nag ñoom ñaar ñëpp kenn ku nekk li nga xamante ne bii moo ca gën a fees ni ñoom ñoo ñe ku ci daan baa nga daanu ci lépp nag des na ko topp fii ci sunu chaîne bu mag bi la di Yatal Vision la chaîne de l'actualité ngeen abonné bu baax a baax te like eh, te partage bu baax a baax.